ndaje tey bi euh, te euh, responsable coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp fekkee ko ñu ànd ceeg aussi euh, la centaine de missionnaires yi nga xam ne wàccoon nañ sur le terrain les commissaires politiques 184 184 exactement ànd ak aussi seeni membre de mission parce que dafa am ay chef de mission ak missionnaires yu ànd ak ñoom Euh, ñoom ñu wër Sénégal yëpp waxtaan ak euh, tous les responsables politiques pour que vraiment mission bi nga xam ne joxoon nañ ko président de la République wóolu ko pour que ci sens de la justice am de l'équilibre mu mën a tànn euh, li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy représenter suñu coalition ci élection yi nga xam ne ca la ñu jëm ci wàll woowu nag bi ñu ko waxtaanee aussi ñëpp rafetlu tànn woowu waaye xam nañ ne tànn nag toujours ni tubaab naan tout choix et renoncement euh, loolu xam nañ ne am na ñoo xam ne xëy na bëggoon nañ nekk ci liste yi euh, waaye defe naa ne li fi euh, tënku mooy ñëpp vraiment d'accord nañu soutenir sans réserve le choix du président de la République son excellence monsieur Macky Sall. à l'unanimité amut kenn ku manqué ci loolu à l'unanimité de tous les participants à cette réunion ni ñu ko waxee muy tous les responsables gis ngeen ñu toog ñëpp euh, fii ci table ji muy présidente euh, Aminata Mbengue jaay bu conseil des collectivités territoriales euh, muy le président du conseil économique social et environnemental monsieur Idrissa Seck ak sànq bi ngeen fekkee juste ñu pare muy suñu mag vraiment monsieur le président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne ñun ñëpp gërëm nañu ko ci ni mu àndeek président de la République pendant tout ce temps la ànd ak moom ci loyauté sans réserve ak une efficacité redoutable dans la manière dont il a conduit les travaux de l'Assemblée nationale loolu it euh, defe naa ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar yëpp ànd nañu aussi féliciter ko Ah, te defe naa ne ci turu président de la république waaye ci suñu turu bopp mu doon vraiment suñu mag joo xam ne ji euh, ak expérience am ak xam-xamam vraiment il a su tenir vraiment cette assemblée nationale euh, qui a été exemplaire euh, dans l'accompagnement euh, de notre régime li nga xam ne aussi euh, jàpp nañu ko mooy dinañ dellu aussi ci suñu base yi ak les missions sandele ndaxte nag aussi fa ñu jëm euh, li ñu ci bëgg mooy rassembler et mobiliser surtout tout tout tout tout tous nos waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy le programme bi nga xam ne moom la président jot a réaliser te ñu wax ko fii mën nañu ko faram-fàccee defe naa ne fi Sénégal yegg ci dix ans yi Euh, defe naa ne nous avons fait des bon extraordinaires dans tous les domaines mun nañ koo lim muy le domaine social ak des programmes yoo xam ne kenn gisu ko woon ci Afrique mi nga xam ne lañ ci gën a ràññee muy les bourses familiales les infrastructures mu bëri gox yoo xam ne yi depuis plus de cinquante ans bu tawaan ils étaient isolés du reste du pays muy l'accès à l'eau muy la réduction fantastique de la pénibilité des travaux des femmes, muy l'appui aussi au secteur économique à travers les différents fonds yi mettre en œuvre ak li nga xam ne aussi moom la bëgg a def ci le programme d'action prioritaire accéléré ñu tuddee ko PAP 2A loolu yépp dinañ ci ànd waxtaan ci ak les Sénégalais euh, bu ko defee ni ñu ci amee yaakaar comme un seul homme je voudrais même dire comme une femme nous irons à la rencontre des Sénégalais euh, pour que ñu jox ko une grande majorité à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président wax nga ko sànq waxtaane nañ ko aussi li ñu bëgg mooy que la démocratie sénégalaise continue à briller ndax nag aussi amuñu benn complexe ci la solidité de notre démocratie démocratie exemplaire la en Afrique fii dañu fi organiser ay élections. plusieurs fois dans d'excellentes conditions. Donc nous, nu ne voyons aucune raison pour laquelle cette tradition ne va pas perdurer. bu fekkoon ne ci ay jamono ku ñëw rek ne dama soxla nguur gi bu ñu ma ko joxul ma taal ko kon defe naa ne président Abdoulaye Wade du fi fekk Sénégal kon defe naa ne président Macky Sall du fi fekk Sénégal il ya toujours eu des oppositions dans ce pays et il y toujours eu depuis très longtemps des élections transparentes bu ko defee sénégalais yi doon ay nit ñu am xel ñoo xam ne ràññee nañu muy mag ñi muy ndaw ñi aussi ñu jóg le jour de l'élection woteel ki nga xam ne mooy ki leen doy la démocratie c'est ça la démocratie c'est pas comme disent les anglais my way or no way mooy sama yoon rek lañ may nangul bu yoon woow mënul nekk nag ma tas réew mi loolu mënta nekk ak loog da ni ko président waxee am nañu vraiment apaisement la ñu war a jëm wax na ko sànq ñu waxtaan ak tout le monde ñëpp xel yëpp dal ouverture ouverture nag ma nga tàmbalee ci nga nangu li nga xam ne mooy décision de justice conseil constitutionnel jël na décision yoo xam ne ñun neexuñu jël na décision yu neexul ci ñeneen waaye loolu dafa passé loolu ma nga ci suñu ginnaaw comme républicain dañu koy accepter ñun suñu listu suppléant ay suñu ay responsable yu mag a ci nekk ñoom it vraiment ñu massawu leen ndax bëggoon nañ jogante bëggoon nañu bokk bëggoon nañu wane seen bopp mais yàlla dogalu ko ñu nangu li nga xam ne nag mooy décision bi et ils sont d'égale dignité ay tous ceux qui n'ont pas ak acceptés à con compétir loolu it aussi dañ ko war a xam ay sénégalais lañ waaye loolu yëpp dafa jàll ndax bu conseil constitutionnel waxee dañuy jàpp ne il a dit droit bu ko defee ñun ñëpp ñu dal di tënk foofu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu waxtaane tey waaye suñu mbiru bopp sax la ñu gën a waxtaane évidemment la paix c'est important waaye nag nous avons aussi des militants engagés engagement nag mooy aussi engagement loo bëgg a bëgg jàmm nag aussi voilà na ñëpp ànd bëgg jàmm foofu lañ ca mën a yem jàmm ji nag mooy li ñu jig ñu ngi ci woo ku nekk